Mhm. yow da nga bok ci cadre yu gëm sa bop les jambax di parti Bougane gay dani wala mouvement politique euh, xamago ñu ba xam am ngeen kayitu parti gan bayi nañ ko démb gënaaw bi mu fanané police ci bankas police bi ñuy wowe cyber euh, sécurité mhm. ñu wol won ko don ko laaj lutax muy wéddi sonko ci lim wax ci kom koomu Sénégal bàyyi nañ ko euh, lolo ngeen don xaar waaw gis nga

jóg na may plainte pour diffamation Ken plainte moom bu mu demee sax ca ca audition bi dafa dem ne wa man dañ ma fi oode wa. kan moo ma plainte ñu ne ko ah Ken porté wu la plainte Ken porte wu ma mu ne wa. donc li ma fi li lan la mu ne ah parce que da nga contester les chiffres des données économiques du premier ministre Lolo tax ñu indi ko fa donc ça c'est un dossier vide te boo xoolee dëgg lo wax parce que buñ ko calculer xam nga dañ né état du Sénégal ni muy doxé moy que né nguur bu fi ñew bo démé ba tok am nga ñetti weer pour saytu les finances de ce pays là donc wara saytu bu mu leer nañ 3 mois bo défé sa 3 mois nga tek sa rapport jébbale ko wa Cour des comptes wa Cour des comptes saytu ko xol auditer yow yow sa bop ce ce ce sa kii bi nga def euh, rapport bi nga bind ñu audité auditer ko xool ndax dañ koy confirmer wala infirmer waaw moom président euh, premier ministre Ousmane Sonko cour des comptes defagul liggéeyam mu génn commencé def joxe ay chiffres am te moom dëggal na boppam nee na chiffres yii may joxe cour de contre certifié wu ko kooku donc xel nangu na ñu ne ko say chiffres baaxul parce que balaa say chiffres di baax il faut cour des comptes ko mu am rapport final ñu soo ko indi loolu xel nangu na ko. tant que amul un papier définitif buy wone ne Cour de compte nee les chiffres du Sénégal par rapport aux données économiques mingi ni bañu tek ci tamponné le le saut final kooku nañu mën a na naan et chiffres yoy baax na mom comme li wax rek on met toujours les cha la charrue avant les bœufs. Mm-hmm. lu ko teewoon xaar ñetti ñetti ñetti wéri yi Cour de compte waroon discuter xol rapport bi donc ci loolu la ñuy saytu ne ko président euh, premier ministre Man Sonko say chiffre dafa def wala lolay lay mbir mi nit nit nit loolu jar na nit fuñ ñu jëm dañuy auditionné nit légui ko wax Yérim Seck eh, lu mu fi wax Cheikh Yérim lu mu wax Kader lu mu fi wax délit d'opinion légui deli d'opinion c'est un crime au Sénégal way way ban Sénégal lañ nek té lañu ñu lañu la sur sur la démocratie au Sénégal depuis président Ablaye Wade pour que rek ce pays là ait une liberté d'expression man man fogon naa ne affaire boobu teggi nañ ko teg nañ ko de côté liberté d'expression tey bu ñëwee dellu ci waat ci kàddu naan liberté d'expression dañ koy remettre en question ah sama gaañe vraiment waa bi ñu jël nii ça fait peur di rafetlu nag la sortie de Y'en a marre Y'en nga xam ne ils étaient dans le coma entre parenthèses gëj nañ leen dëgg waaye buñ ñu demee ba seen xol tooy ci la noonu déedéet lii il faut ñu teg ci suñu baaraam wax leen ne stop trop c'est trop donc lolu moy lo xam ne koy saluer société civile génn na nit ñi génn na ñepp rafetlu donc parce que injustice sénégalais bëggul injustice. nek lañ mëna interpréter euh, en tout cas euh, libération et classement sans suite dossier Bougane Gueye Dany bi euh, ndax mun nañ ko jàngat comme un recul. Euh, du monstre wala du, du, du, pouvoir en tout cas en place wala da nga jàpp ni c'est la justice euh, boo xamante ni euh, mhm. libre <laughs> ñaar ñep question bu am solo nga poser parce que ñom ñaar ñaar ñëpp tey moo recul du monstre ak la justice qui a mis en place di commencer c'est ce deuxième point justice bi xamné président bougan démb ci conférence bi mu koy rafetlu néna na fi mu fi mu tegoon justice te moom yaakaaroon na ne justice Sénégal kenn mënu leen teg ci yoon te te tey démb nee na gis na loolu parce que ba demee ba toog ba juge yi xool di ji dossier bi na ko mais sa sa sa dossier laa bi mënuñu si topp justice dëggal na boppam di delluwaat ci sa deuxième si euh, kii bi nga wax apport bi nga di par rapport à le recul du monstre xam nga monstre day tànte xaar ma junj fii laal xool mooy xaj buy mboobu rek yow ngay dugg ci buntu kër gi nga ñëw sama kër buntu kër gi xaj bi naan huu di la song di xool di la nattu xool say bët xaaral ma xoxtal ko bu dawee rek ma dal ci kawam waaye bu la xaj bi na bu xëbbi na ne wow nga taxaw mu ne ah ki jàmbar donc xaj bi ci boobu moo naan nii war a ki dem looloo am te loolu dafa baaxut ci nguur buy soog a toog nguur buy soog a toog da nga war a am le dos large ubbeeku ne tekk bàyyi ñuy dóor parce que yow li nit ñi di wax li ñi di saytu li nit ñi di critiquer loolu leçon lay doon pour yow tremplin le pour nga ci jangate delu indi ay amélioration mais en même temps c'est juste là aussi pas moo jàpp Me Suzanne Camara y a le commissaire Keita Il vous nga mën comprendre l'ol tamit euh, elle est juste euh, wala lan nga ci gis. <laughs> ba légui rek ça tombe toujours te ñu ni waxtaan. Suzanne Camara commissaire Keita mais nous, c'est des citoyens sénégalais aussi nous dañuy dénoncer un peu xam injustice bi fi c'est-à-dire que ñoom sama gagné, voie bi ñu jël mo ragallu et c'est une voie bo xamné ñun Sénégal ñu mel ni la dafa bett ñe parce que ñun bu néwon nañ Macky président Macky Sall rek mo doon def loolu non waxuñu bilan bilan matériel président Macky Sall bilan immatériel bi donc ñu xex élection yi ñëw ni passé passé né. c'était des élections référendaires c'était deux candidats Amadou Ba Amadou Ba ak Diomaye ñenn ñëpp contre gars sénégalais xoolu ñu ne c'était un référendum ndax lan ñu ñu ñu teg fi président Diomaye parce que tout simplement dañoo gis que ne réew mi injustice bi daf fi bari injustice boobu nag moo tax tey sama gars ñi ñëw ñu ne ah nañu nañu raxas bale injustice bi teg fi ñoo xam ne au moins dund nañu injustice te ñooñu bu ñu demee ba toog danañ xeexaat injustice rafetalaat justice. légui yow. Mhm. léegi dañu bëggone xam. 6 mois. euh nga japp ci 6 personnes. Mhm. Babacar da bëggoon poser ben question. ah Babacar wa waaw oui oui allez allez allez ci ci wallo yaa ngi doon développer ci injustice boobu la bo euh, dama rebondir parce que ñi bari dañuy ne. Mhm. bu ngeen gagner euh, justice bi <laughs> justice juste là bu ngeen perté ngeen de justice bi juste parce que quand même on a vu euh, ñaari ñaari ñaari ñaari traitement euh, pas traitement en tout cas gis nañ ni en tout cas amna na ñoo xamante ni justice bi japp nañ leen yobul leen kasso amna na ñoo xamante ni dañ leen libéré. Mhm. est-ce que côté bobu tamit mënuñu mënuñ leen poser yenn questions et aussi ci wàllu poser question ñan ñun ñi wala ñoom. ah parce que ah, c'est interprétation yi moo xaw bizarre <laughs> bu ngeen gagné ngeen né justice bi dafa juste bu ngeen perte dossier euh, ngeen né euh, la justice aux ordres euh, waaw xam nga lolu interprétation la xam nga justice mën nañ ko xolé ci comme tu ni pour répondre rek ci tay façon wo xamné bu la né par exemple ah c'est favorable nga né justice dafa bax bu favorable nga justice ñan ñoko fa tax def ñi fi nekk dañoo doon def loolu yaa ngi fàttaliku bi ñu bi bi le maire de Ziguinchor bi mu nekkee fële bi ñu jugé contumace bi ak yooyu condamné justice bi baaxul bu ñu demee ba juge de Ziguinchor libre ñu ne ko justice bi baax na xam nga loolu mooy rhétorique boo xam ne ñoom ngay dégg mais président Bougane gaa dafa mës a wax même ci livre bi mu ngi koy bind réforme de la justice dañ ko war a def dëgg la justice bi du ñëpp bon ci juge yi am na juge yoo xam ne gaa war nañ saytuwaat seen seen seen gannaaw am na waaye mënoo jël ñëpp pañe boobu yëpp ne justice bi yëpp a bon déedéet justice moo ñu téye ñi ñun Sénégal bu amul woon justice dañu nekk comme yeneen pays africain yu dictature yu am fële ku ne ràbb ñu ne nag si man mii di wax ak yow ñaata yoon laa dem télé di dénoncé kooku bu nekkoon ci wet ci bunt bi lañ may xaar bu mu ne rab ñu ne ma noq dugal ma ci coffre benn yóbbu waaye dafa am aussi ca gannaaw te ñun si sa Sénégal bi ñuy kaas noonu xam nga fan la c'est plus côté politique lañu koy xeexee mais litige boo amee litige wala moo am ni problème familiaux ak ak noonu justice bi day dawal dawal yoon. Mm-hmm. yéen politiciens yi Babacar mooy problème bi. Babacar justice boobu politique boobu di defar di par parloo côté boobu foofu la ñuy dénoncer. Babacar. Mm-hmm. léegi Bougane itam li muy teg Sonko daa daa diis moom bàyyi nañ ko démb kay.

Ce que wax lu tax muy continuer attaquer c'est une constance il n'attaque pas la personne de Sonko Babacar d'où la personne de Sonko qui intéresse Bougam. ce qui intéresse Bougam, c'est sa constance bi est la constance bi mu yàgg c'est mooy lan que ne réew ci ah dinañ ko ah, Je me ok continue continue la waaw baax na baax na continue la Babacar li nga wax lu am solo la xam nga président Bougane dafa mës a nekk ci constance constance am bi mooy que ne man kii ma àndaloon démb di xeex ngir l'intérêt du peuple sénégalais muy l'antisystème ñu ànd ak moom dans cet antisystème là liggéey ak moom ci côté boobu waaye bi ñu demee ba gis ne kii di sama nawle ñu àndoon di liggéey ndeketoo mu ngi lonkolo ak ki ñuy xeex di def ay dil ci suuf protocole teeru bàyyi sëg e léegi kooku constance boobu mu doon wote gisuñu ko nga ñëw toog ñëw génnee ay chiffres génnee un programme ne sénégalais yi réew buñ ma falee man ci 2024 bi foofu bu ñu falee ñun pas moom mais bu ñu falee euh, seen seen seen coalition 2024 bi ñu defar réew mi sénégalais yi dootuñu jooy. mbënd mi gis nga dellu na xale yaa ngi jël gaal gi di dem cherté de la vie gaa commencé woon nañ bu baax Babacar bi ñu commencé woon teg les premiers centimes de de de kii ñu ko mais après dañ ko jël sànni ko teg de côté DPG bi ñu doon xaar gisuñu ko projet bi mu ne septembre ñu ngi lan tey en octobre lañ nekk de projet boobu tam gisuñu ko waa gaa kooku donc bu demee ngam ni li mu tegoon yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dara du ci dëgg mais kooku dañ koy dolli di ko du attaque personnelle mais attaque pour ne dire que ah, sa waay promesse nga tegoon de gisatuñ ko dañ lay recadrer en position de sentinelle léegi le problème sénégalais li muy bañ sénégalais moy que ne rek comme kii tok na nañ ko may état de grâce c'est vrai dañ ko wara may état de grâce deug la waye bu tegoon les premiers prémices ah d'une solution ñu xamné ah ki dé li muy teg ni ni nii ah ñu ci sentu un espoir réew mi mi ngi jëm ci ben direction ko dan nañ ko bàyyi mu liggéey ci point de presse bi mu def démb nee na. Mhm. Euh, Ousmane Sonko moo leen jàngal. Mhm. ni ñuy opposé on nii. <laughs> Euh, am na ñu ne euh, kon bugaan day sonko sonkolu <laughs> waaw xam nga loolu yàgg naa ko wax ci débat yi nee naa man xam nga ku ma yërëm. bi bi ñuy demee ba avant les élections maa ngi doon wax xam nga man ki ma yërëm mooy kiy jël le pouvoir 2024 fekk xaw ma woon sax ne boobu ñu ngi doon wante est-ce que président Ousmane Sonko dana dem am du dem ma ne man ki ma rek moy le prochain président parce que da fa indi une sorte une nouvelle sorte de politique manam la résistance dans la violence donc bi mu demee ba teg la résistance dans la violence le président Macky Sall reculer li fi am c'est c'est c'est du jamais vu au Sénégal violence bi fi au mois de de mars 2021 ba tay ni violence bobu kenn mënu ko am légui mu wan nit ñi nekk ne nii la ñuy résister nguur bul ko may marquage à la culotte bul ko jox majorité à l' assemblée nationale loolu yëpp moom ñun dañu topp ci ay traçam duñ ko may marche marquage ko parce que yaa ñu ko jàngal donc duñ la may duñ la may marge parce que dañuy def marge marquage à la culotte duñ la jox majorité à l' nationale parce que loolu nga doon woote donc tey aujourd'hui buñ demee ba toll ci dimension boobu je pense que ne lim ñu jàngal moom la ñu ko waaye gàcce nga la ñu ngi koy remercier parce que jàngal nañu benn système de résidence boo xam ne président Bougane mu ngi koy rappeler dem démb. Babacar. léegi euh, dernière question xëy na mooy élection 17 novembre élection législative anticipée. waaw. Euh, yaakaar ngeen ni mën ngeen a daan Pastef Pastef de moo mel ni moo ëpp taxawaay ci langue politique gi am déet. ah Babacar nañu fàttaliku ne élection bi ñu jee génn ni Pastef coalition la démé won jom coalition jomay Bo xolé sen site bi nga gis né 118 partis parti ñoo leen ngemboon te cent dix parti ñu bëri ñu ci ko di dem L'électorat de de Pastef ne pèse pas 30%. ñom ci sen bop légui nga ñëw le 17 novembre buñ comme ni ko président Bougane expliquer rek ñu dem de façon dispersée nañu def ay coalition ñëpp faire de rafetlu nga gis tay coalition yu forme bo jëlee suñu coalition sam suñu kàddu ñan ñoo ci ne cette vague de jeunesse muy Pape Djibril ñoom Bougane Anta jigéen ju mën góor nga jóge fofu ñom Thierno ak ki numu tontati euh le maire Barthélémy Dias limu mu liggéey Dakar Barthélémy Dias ñoo ñëpp c'est cette génération bo xamné dañoo xol que né effectivement ñun Sénégal war na war nañ ci liggéey Katinga ngaalama le maire de Dakar donc pôle de de de de nu mu coalition boobu ñu teg sa aar suñu euh, ak nu mu suñu kàddu pour ko Sénégalais yi xos bu gesto xolat ko né pôle bi ñi fi né ñep ñep ñep ñep ñep ils ont montré leur preuve dans la politique sénégalaise bu leen amoon majorité bu fekk ni passé daana le nak waaw lolu mën na nek parce que kenn xamul le lendemain mom kenn xamul Pastef bu ju daane tam ñu xamné sénégalais lolu la ñu waaye ñun dinañ def suñu kenn am am yàlla wan Sénégalais yi nekk lii njuumte la te duñ leen may benn benn benn minute ci terrain bi lañ nekk muy depuis démb ñu ngi terrain barki démb ñu ngi terrain depuis daaw ñu ngi ci terrain bi li ñu tax a jóg rek mooy l'intérêt de la nation te waruñu leen may buñ ñu defee erreur may leen majorité xam nga lii xoolal lii commencé gum DPG bañ nañ ko tas nañ assemblée nationale yaa ngi gis HCCT conseil économique social loolu yëpp tas na mais kuy bu amee majorité fu ñu jëm. jërëjëf Jules Diatta. mi ngi noonu fu amee majorité fu ñu jëm Babacar problème boobu la jërëjëf Jules Diatta bokk ci cadre ñu gëm sa bopp la jàmbar parti bu gan ngay dali jërëjëf Alimou jërëjëf Soxna Naata. Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout type de garantie. Caution de soumission, caution d'avance de démarrage, caution de bonne exécution, caution de retenue de garantie, caution définitive, assurance décennale, tout risque chantier et responsabilité civile. Pour plus d'informations, appelez vite au 33 889 82 10 ou